très chers fidèles internautes bonsoir kontaan lay defaat encore tey nag bii mooy nekk sama beneen visite bu mujj bi nga xamante ni moom laa leen préparé loon ci spécial Korité fii ci Sénégal set damay am honneur nag di ko seet si ndax day ku baax nekk princesse boo xamante ni macha allah elle est tellement adorable ci koor gi dama fee ñëwoon ñu daal di def euh, ndogu bu macha allah ma ne pourquoi ne pas nag ci koor gi ma ñëw déwéniti si ko ci kàttanu yàlla avec la complicité de Djily dañuy dugg nànk seet si ko à gi dama fay ñëwoon ñu daal di may dalal jox ma ma ndog bay bëgg a dee moo tax nag ma ne lii di korité gi faaw ma ñëw déwénati ko muy ma princesse adorée boo leen gisee fa tey rek xam ne toujours maa ngi fi nga xamante ni mooy chez Clara macha allah mu nekk na ku disponible ah dama ko war rek man ma caat jaaral man nag dama bëgg xool xeetu sañ si am jëli jëlal ma ko caat nuyu naa la Brésil nii rek nga def. waaw nii nu ñuy def dañuy. korité nii rek nga def ko moom tuuru nii tamit. waaw xam nga lépp teraanga la te yàlla suñu boroom moo njëkk a bëgg lu rafet. il faut ñuy def ba mu rafet rek. en tout cas man sama xol fi ñu toll nii dépassé na ñurum ñaram yi. <laughs> déedéet kay. <laughs> déedéet. Euh, fekkeel déwén caat baal naa la baal ma. yàlla boole ñu baal ñu fekki ko ay at yu bëri. Uh-huh. ma ciy profité di déwén ci Sénégalais yëpp. Uh-huh. ak euh, nit ñi nekk ñëpp partout dans le monde ñu leen di seetaan. maa ngi leen di déwénati di leen baalu àq di leen baal ak uh-huh. di leen ñaanal gudd fan ñu yàgg feete korité bi ak weeru koor gi. ay at yu bari bari bari. macha allah ñii seetaan nag bu leen daw ah te instant bi xam naa ne yéen a ngi bëgg a daanu mais taxaw leen parce que moo maquillé boppam elle fait de la mode macha euh, mu nekk nag talentueuse ah, en ce qui concerne mooy beauté ndax wax dëgg yàlla maa ngi gis sa statut mi ngi nice mi ngi wàcc torop yal na yàlla def mu barkeel mais nag euh, lii di korité gi pour la première fois bi nga duggee ci religion bi macha allah nan nga ko dundee. <laughs> non Thiat yaa ngi def erreur que. Ah. c'est c'est j'aime bien ta question elle est pertinente. parce que ñu bari loolu lañu parce que c'est pas la première fois may fêter Korité en tant que musulmane. Ah. Euh, je me suis convertie en 2012. déggal li peut-être que li ma ci dul wax parce que je juge pas nécessaire que ma war di ci wax moo tax mosuma ci communiquer donc la dernière fois euh, avec beneen site mhm. la question est venue comme ça parce que da leen di jaaxal ñuy dégg des fois Zeynab dégg mhm. des fois Clara en fait loolu moo indi woon euh, question bi ba tax ñu dugg ci sujet bi ah. waaw mais du sujet bu may faral di waxtaanee loolu moo tax kenn mosu ko xam mhm. mais je me suis convertie en boo déggee maa ngi wax Alamine mooma tuubal te ku xam na ni nekkatu fi yàlla na na ko yàlla yërëm mi ngi noonu donc euh, kon war nañ xam ne loolu du tey c'est pas la première fois que je fais mais mais tey nag avec euh, monsieur mu nekk fii macha allah spécial la non. waaw c'est quand même man moom chaque jour dafay spécial si man de toute façon. <laughs> mais mais mais tey gën na spécial parce que nag à la présence de monsieur wax dëgg yàlla day neex wax wax dëgg yàlla nii nag moom jongama bi moom ko ko am nag ci sawet wet di def nag sa korité. waaw tey moom faaw mu validé. tey moom mooy suñu deuxième korité quand même. mais wax nga dëgg nag am na lu ci xaw a spécial tuuti mais boobu duma la ci may dama la koy dencal. Hmm. bu bi bu ren bi moom. Eh. moo gën a spécial bu daaw. <laughs> <laughs> waaye léegi lu tax doo ma ko may lu tax doo ma ko may. non non exclusivité la loolu dinaa la ko jox après incha allah. after ah? waaw <laughs> ma ñëw fi fekk fi nag say xarit say am di jàmm macha allah mu mel ne rek dafay résulté que ne euh, Clara nitu nit ñëpp la comme ni nga ma ko waxee woon ci koor gi ni man Clara Sénégal ñëpp la donc loolu dafay am firnde tey parce que bi ma ñuy wax dëgg yàlla fekk naa fi say xarit yoo xamante ni macha allah ñoom it comme tàngal ba moo jeunesse comme tam <laughs> tarkal la. ana lan ngay sànni rek ci ñoom ñi nga xam xamante ni tey ñoo ñëw ci lu mel ni euh, Korité ñu ñëw seet si. ñu ñi ngi fi gis nii ñëpp euh, c'est mes sœurs. samay grandes sœurs lañ ñëw bokk ndey ak baay. Mm-hmm. donc euh, c'est des c'est personnes yoo xamante ni que je vois tout le temps autour de moi ak événement bu mënti am. que ça soit un événement malheureux wala leneen lu mënti doon. Mm-hmm. ils sont toujours à mes côtés. Mhm. parce que moi je suis très famille. Mhm, et noonu la ñu yaree donc on est tout le temps ensemble. Mhm, je suis tout le temps avec mes sœurs aussi euh, j'ai mes amis d'enfance comme Miss elles sont là. on est tout le temps ensemble. on fait ça naturellement. tout cas Thiat kontaan naa alors ñu gis nag li nga xamante ni mooy euh, koor gi yëpp durant tout le mois de Ramadan man sax am na bu ma assisté woon macha allah mu nekk geste bu noble boo xamante ni yaa ngi ko doon def ci koor gi yëpp ana li nga ci doon séntu yëpp résultat am nga ko ci ak ban bilan nga nga xamante ni moom nga ciy def ndax wax dëgg yàlla am na ci ñu ma xam ñoo xamante dañ laa xam nee nañ lii ci nga dëkk wax dëgg yàlla mais yow mi nga xamante ni tey macha allah yaa ko defoon amaana di nga ci am bilan boo xamante ni di nga ko ci mën a daal di def comme synthèse. bu ma ko bu ma man bu ma ci jàllee rek jàll naa ci parce que jour bu nekk bu ma xëyee ak ak li ma war a def donc euh, lu lu jàll jàll na mhm. koor gi comme ni ñu ko programmé woon ça s'est bien passé mhm. on s'est débrouillé pour di joxe ndogu tous les jours on a arrêté on euh, a ay une semaine avant la Korité parce que il fallait que ñu commencé waat activité yi xam nga rek salon bi tijjiwaat beauté bi tout sa là suñu clientes yi doon ñu xaar mhm. loolu moo tax ñu dellu liggéey mhm. mais lu naturel la on l'a fait jàll nañ ci amuñu benn bilan buñ si def mhm. parce que on a dépensé sans calculer te tuddeewuñ ko dépense lu baax moom yàlla nga koy defal mbaax alalu yàlla la kenn moomul baax nit ñi dañuy wax ay diw dafa baax diw dafa baax. Mhm. mais baax moom alalu yàlla la kenn mënul taxaw ni maa ko moom. ku def lu baax yàlla nga ko defal. effectivement donc euh, am naa ci satisfaction bu baax. Mhm. mais comme on peut pas mënuñu defal ñëpp tamit. Mhm. bu ñu sañoon mu gën a yaatu. mais nit ku nekk ci say moyens yi nga am rek ci nga mën a yem. donc euh, ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla bu defal xéwal defal ko ñëpp mhm. ñun suñu bos moom bu yokkoo ñu bokk kook ñëpp <laughs> bu keneen tamit yokkoo ñëpp am jàmm rek mu neex waaw ndeysaan macha allah aca mi ngi noonu moom teel naa xam ne wërsëg bi du jàmm yàlla la yàlla defal jàmm lii nga mën ren nga mën lu ëpp loolu noonu ci kàttanu yàlla déwén ci barke Serigne Touba en tout cas man je suis ravie je suis tellement contente tey ñëw fekkaat la fi nga nekk at tombé le euh, euh, dama lay bàyyi ma ne damay ñëw daal di lay seet si tey. waaw Sénégal 7 kontaan naa trop ci yéen. Uh-huh. c'est un c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. e ça le sera toujours. Uh-huh. donc kontaan si bi ma seet si. même bu fekkente ne bon temps bi bëriwul parce que xam nga rek jour fête la. <laughs> mais kontaan naa trop maa ngi leen di remercier di remercier seen internautes yëpp. ñëpp ñi leen di suivre maa ngi leen di remercier bu baax. di leen kuku di leen ñaanal jàmm ju bari bari bari ci korité bi. <laughs> ñu ngi ko koy ñaanal ñu nit bu Mbacke ngeen nekk ci jàmm ci barke maam Abdou ci barke ñëpp ñi nga xamante ni ay sangu yu baax lañ yàlla lafal leen cat njaboot gi barkeel ba li ngeen ciy sentu ñëpp yàlla defal leen ko ci bàyyi la ak say xarit nag. kontaan nañ bu baax ci sunu sœur bale moom tamit euh, di nuyu bu baax bijou sama mag sama xarit moom tamit wax dëgg yàlla bëggoon naa koo seet si mais xam naa temps bi moo ñu ko dul may noonu la ñuy déwéne tey ñëpp ñëpp ñi nga xamante ni boobaak léegi ci koor gi ñu ngi àndoo woon nag ñun di leen dooxaat déwénati bal leen ñu ak bal nañ leen yàlla nañu teewee ko ay déwéni déwén ci barki Serigne Touba peace and love excellente soirée et tout le monde kontaan nañu bye bye.